asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki internet yi yéen a ngi ñuy seetaan ci ndindi Média la seen leader euh, di seen boo xamante ni macha allah moom la ñëpp choisir moom la ñëpp di seetaan waaye nag tey ñu ñëw fii ci kër jëwrin ju mag jëwrin joo xamante ni bii macha allah képp ku ko gis rek war nga ko xàmmee biir kër sëriñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Akhla di jëwrin Modou Fleur di jëwrin fédéral di kuréel bii di euh, yaatal Makarimal Akhla tey nag ñu ñëw seet ko ci xam-xamam ko ci ak njàmbaaram seet ci ko ci euh, dimbal gi nga xamante ni bii moo ngi koy dimbali jaam ñi rawatina mbokk taalibe yi bu ko defee dama koy jox micro bi euh, mu nuyoo xam naa ni tey li ñu war a waxtaanee bëri na lool mbokk yi ngeen suivre ñu ñu bàyyi ko mu nuyoo jëriñ Modou Fleur nuyu nañu la. waaw jërëjëf buur ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la jaajëfal ci ñëw bi nga ñëw ànd ak chaîne bii di Ndindy Média Ndindy Média mm-hmm. muy seen bu am solo. nga xamna ku wax euh, ndindi rek da ngay wax Cheikh madou Fadel. machallah nga and ak euh, seigne Khalil di bax di ñaan chaîne bi jëm ci ko bokku ci chaîne bi nga xamne mom la seigne Touba euh, gën a teg loxo. amiin rawatina Cheikh madou Fadel mi xam borom mu am am. amin allahumma amin di sante seigne Mountakha bu bax di ñaanal di sante seigne Abdou Karim borom Makarim Akhlaq nga xamne lepp mom la. di diko jaajeufal bu bax allahumma amiin. sant sëñ Modou Moussa Falilou mi nga xam ne moom ma booleeg moom. ndeysaan waaw foofu nag bu baax. ndeysaan nga xam ne jàmbaar la joo xam ne ko ànd ak moom rek ci kanam nga jëm. macha allah ndeysaan yàlla na ko yàlla taxawu ci liggéeyam bi muy def ci réew mi. ak na jàppale gi nga xam ne jàppale na ma ko teg na ma loxo. allahumma amiin te nee na ànd gi nga ànd ak man doo ko rëccu ko ànd ak yow du ko rëccu. ndeysaan macha allah kon loolu rek la ñu sante fas yéene waxtaanee xam-xam nag. Mhm. ci liñ ci xam rek. macha allah euh, ci faj. ak tegtal. ak listixaar. macha allah Euh, comme noonu nga ko waxee jëwrin euh, Modou Fleur macha allah ci ndeysaan kóllëre gi nga xamante ni dox na sa diggante ak ku tedd gi di Serigne Abdou Karim Mbacke borom ak la ñu koy ñaanal balay sa buri Serigne Mbacke maaram xaadim borom jaam ñi suñu borom yàggal ko fi lool te wér tey nag ñu war a waxtaanee ay points yu ci mel ne faj euh, tegtal ak ñaan ak xaar ñu war cee waxtaanee lu bëree bëree bëri balaa ñoo dugg ci waxtaan bi dañu bëgg nga wax mbokki internet yi jàkkaarloo yow di la seetaan jëwrin Modou Fleur mooy kan waaw Modou Fala de jawrin la joo xam ne ju sëñ Abdou tànn la mu ànd ak moom mu gën a xeebu ci jawrin yi euh, bokk makarim axlaax yor ci fédération bi naan yaatal makarim axlaax dëkk ca cosaanoo fi naan jolof euh, ay maamam ak i waajuram yëg nekk jolof ndeysaan sama màkkaan nag sama kër nekk fii ndindi Touba feex ñu liggéey ci wàllu faj ak ñaan mooy suñu liggéey moom la ñuy liggéey di ci yor njaboot gi di ci joxe addi di ci dimbale doomu aadama yi. ndeysaan. Mm-hmm. macha allah di jolof jolof piir loolu moom dégg naa sax mu doon sab dàkkantal euh, jawriñ Modou Fleur taalibe sëñ Abdou Karim Mbacke jolof jolof piir macha allah euh, jawriñ Modou Fleur ñu tàmbalee nag ci wàllum paj tey bu ñu duggee ci wàllum paj lan ak lan nga ñu mën a xamal ci sam paj. waaw faj euh, li may wax rek faj moom yàgg nañ ci ndax médecine moderne. am nañ ci ñaar fukki at ak ñeent 24 ans. ci médecine moderne. médecine moderne. Mhm. dem ci hôpital ak ay centre de santé ak ay poste de santé. macha allah. Euh, léegi nag ñu dem ba lii fi maam yi bàyyi woon nag mu daw ba ñëw ci sama loxo. allahu akbar ñëw yàlla def mu ñëw ci ñun ñu boole di boole di faj faju tubaab ak faju wolof. dëgg la waaye nag faju wolof bi moom lañ gën a suivre ak ñaan. kon point bi ñu indi tey mooy faj ak euh, ñaan. Mhm. ak tegtal ak listixaar mhm. nga xam ne tey mënoo dund te yii doo ci doo ci jëfandikoo benn il faut nga am boo ci jëfandikoo. dëgg la ci kàttanu yàlla lépp nag dañ koy def ci alxuraan ak euh, ci ndigalul borom bi ak ci sunna ak ci tegtal ak mhm. ci ndigalul sëriñ bi. Euh, li gën a doy waar mooy hémorroïde may gi la ci yàlla may ak ndoxum siti. waaw hémorroïde moom ñaari yu laay faj. moom hémorroïde ak euh, ndoxam siti dëgg la. ndoxam hémorroïde nag ñu gis mu sonal ay nit bi ñuy ñëw ci yow waaye bi ñu leen gisee ñu génn fi gis nañ ne am nañ tawféex la ñu doon sàkku ci yow suñu borom dogal na ko hémorroïde nan nga koy traité ak hémorroïde nan la mën a def nit ki bu ko jàppee. waaw li ñuy wax rek mooy day feebar boo xam ne. Mhm. Euh, boo xoolee téeméeri nit yoo gis juróom-ñaar fukk ak juróom yi am nañ ko. allahu akbar téeméer nit yoo gis juróom-ñaar fukki nit ak juróom am nañ ko. dëgg ne day tawat joo xam ne tawat di bëri li muy def. Mm-hmm. dafa bëri ay signe dafa bëri nu mën a def doomu aadama bokk na ci kum jàpp ñaareel da lay jeexloo ngay jeex dana la def loo ngay seere. ndeysaan dana la def ballonnement maanaam sa biir di yëngatu. Mm-hmm. dana def ñàkk deret ngay miir anémie dana la def uh, yaram buy tàng dana def euh, li nga xamne moy constipation ma serré man mm-hmm. na dem ba indi colopathie fonctionnel amna interne ak externe man mm-hmm. na la tëddloo ngay gënt maanaam bi neub ak bi feñ waaw waaw man mm-hmm. na la def lo ngay gënt man na la def bopp bi metti man na man na sedd sa yaram sax mom si ñi mën def dafa rawati na nak serré wala wala bu kum japp bu fekke dafa euh day def direct deret ju muy génn nag moo lay gën a seereloo moo lay gën a néewloo do kàttan seere bi muy seere tamit day gën a tax ngay gën a néew doole mhm. kon émorite moom dawat dawat ju doy waar la joo xam ne ju bëri la tamit ci dëkk bi rawatina ci nit ñi ni ñuy dundee ak lekk gi ñu lekk dëgg la moom xam ne bëri na torop torop mhm. torop torop torop moom émorite mu dem ba bu la jàppee yow muy góor yàlla mën na la indil impuissance sexuelle waaw loolu mën na ko def. Mhm. hémorroïde mën na indi euh, néew doole. hémorroïde mën na indi spermatozoïde maanaam walax njaan yi nga xam ne nit ki war na ko génne. Mhm. buy joteeg soxnaam mën na mën na feebal mën na wàññeeku. allahu akbar hémorroïde mën na def euh, nit di gaaw a daanu mën na ko def. hémorroïde mën na dem ba jàpp ay ay tànk ba dox dutu ko man allahu mën na dem ba muur ay bët mën na dem ba euh, wàññi sag lekk bu baax a baax. Mhm. mën na dem ba jaxasam xel tamit. allahu akbar ngay sikki sàkk ak gitu yëpp ya, mën na e def. moom hémorroïde moomu yow ci ñaata e, waxtu nga koy traité ci ñaata fan wala ñaata weer. waaw man nag sama faj moom buur ay weer la moom. ay weer waaw moom rendez-vous moom da ngay. dem léeg-léeg nga am ci koo dem mu la bu la ko joxee vingt heures nangam nangam. déedéet gaal tawat mënoo koo faj ci vingt quatre heures. tawat moom moom mënoo koo faj ci heures mënoo koo faj semaine moom dafa laaj traitement durable durable lu a la ngay dem di di dem di di dem di gën gaa ndaw da nga dem ay 6 mois ba ay 8 mois euh, yàlla bu ñu def tawféex nag man la ci defal tawféex. tawféex ndax ndax maladie la boo xam ne. comme fu muy jaar dafa bari. ba ñëkk ñëw hémorroïde dafa am fu muy jaar ci gastrique. dëgg la jaar ci ay estomac jaar foofu ba du wàcc door a ñëw nekk hémorroïde interne wala externe. macha allah kooku laajul nga di ko faj faj bu bu gaaw dafa laaj nga di ko faj faj boo xam ni. Euh, à long terme lay nekk. à long terme day day day xaw a diire tuuti. macha allah waaw de seere bi muy ànd ak. Mhm. bokkut ak ak ballonnement yi. ballonnement yi bokkut ak constipation bi mooy seere bi bokkut ak ak vertige yi xel mi teey meeg ak animé bi ngay ngay ngay miir. te yooyu yëpp da ko war a traité. waaw yooyu yëpp ay signe la. Mhm. waaw signe boo ko boolee symptôme la lay jox kon léegi war ngaa mën a xam loolu lan moo koy ak nit ki lan la war a lekk. nan la war a toogee ak nan la war a dundee. dëgg la waaw ma néew feebar boo xam da koy faj ci ci ci ci ci ci ci fan yi néew moom. du Emery ko faj faj ci faj ci faj néew. macha allah comme ni ko euh, gars yi di waxee c' est l' expérience qui fait la différence à tous les moments kii ku jàkkaarloog moom gis ko di nga xam ne borom xam-xam la te li muy wax maitriser na ko ndax ku boole médecine traditionnelle la ak médecine moderne macha allah moo Modou Fleur ñu ñëw ci ndoxum siti ndoxum city sonal askan wi lol fim tol ni ko gis muy dem mi ngeeg ndoxum city wa ndoxum city mom euh, buur lu mo mo gëna bari mom mo gëna bari neena la bi témer nit yo jël 75 am nañ hémorroïde mais hémorroïde euh, ndoxum city euh témer nit yo jël 80 am nako mhm. jurom ñet fuk ci témer bu ne am nañ ko euh, ndoxum city nak tubaab mi ngi wax syphilis syphilis waaw syphilis la tudd mhm. dafa bëri nak ay xeet ci bir syphilis dëgg la dafa bëri ay am na lu naan ferinclose am na ñu naan dermatose euh, yu yëpp dafa bëri mën nañ ko lim yu bëree bëri ci biir ndoxam siti dëgg la waaye bi nga xam ne moo gën a bëri fii nag euh, moom na la def xasan. xasan waaw yaram wuy xasan xasan ñu tubaab naan ko pyruvite. Mhm. mooy xasan man ngay xasanu ba yow sa sa loxo da nga koy xeeb da ngay jël bant di ko xasanu. di ko xasanu ba mu dagg. waaw ca mën na mën na mën na dagg sa kawar kawar gi mën nay dagg nga xam kawar gi du moom amati wala wey di dañ. nga waaw wéy wey day dañ. ñaaral fekke jigen timi day ëmb bu tollee ci ñettel bi wala ñaar weer ëmb day tour oh la def man na def impuissance sexuelle en même temps euh, ndoxam siti man na jaxase am xel timit man na dem ba indi lu naan lèpre mooy gana gaana ndoxam siti. allah dafa bëri dafa bëri ay façon. ndoxam mhm. siti dafa bëri. léegi nak euh, mom timit tawat la jo xamni tawat ju ju ju ju yag la. Mhm. ju yag ciosan la. ciosan la waaw ciosan lo xamni tawat ju fi yag yag la. mom mhm. timit euh, lim man dafa bari man na dem ba ti ay tank ci mom ndoxam siti ba ci wërsëg sax wërsëg ni wërsëg man na dem ba tej wërsëg. ba tej buntu wërsëg waaw tej buntu wërsëg ndoxam siti. waaw dafa bari ndoxam siti dafa bari façon. Mhm. waaw dafa bari façon ndax am na foo xam bu fa tolo te fajuloko man na def li nan lèpre gana gana waaw man na dem ba say cër di dag loolu yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal waaw dafa am fu day dal mag mhm. day dal day dal xale day dal euh, màggat mhm. day dal façon nit ku ne ndoxum siti dalay dalay dalay dal macha allah waaw mhm. nekk na euh, feebar boo xam ne tamit euh, dafa am dëkk yoo xam ne da caa gën a métti dafa dafa la ëppee dafa gën a dafa dafa gën a bari wala boo fa nekkee day gën a métti dëgg la mooy ci yenn zone yi nga xam ne zone tropicale la ak zone yi nga xamne dafa gëna bëri gantax mhm. waaw zone yi gëna bëri gantax gëna naat fa la ndoxum city gëna a fa la ndoxum city gëna a méttee foofu lay gën a euh, lu waral loolu souvent. loolu souvent garab yi moko def ak souf ci garab gi garab yi ak souf si garab yi day am doole souf ci day am doole. deug la fu mel ni boo demee salum Saalum dafa bëri garab souf ci am doole da ngay dem ba ndoxum city mi day toj tank yi di toj ay loxo di toj ay tuñ. deug la day dem ba day dag say wé ñu naan ko kuli <laughs> ndoxum siti bi am foofu ak fii bokkut ndax man am expérience boobu am naa ko dem naa foofu faj fa ay ay ay at kon coli ba tey ci biir ndoxum siti la bokk waaw loolu olof a koy wax mhm. coli olof moo naan coli waaw waaye léegi dafa bëri ndoxum siti dafa bëri ay façon bu mhm. fekkee da nga koo jàngat dafa bëri ay façon am na ci boo xam ne nag moom da ngay dem ba xasanu bi ngay xasanu moom da nga koy xeeb day day génn ndox def ay jooytal jooytal yi di di rogalaat fu mu laal rek day am day am ay jafe-jafe. dëgg la loolu mooy loolu mooy loo xam si tubaab. Mhm. macha allah nga wax loo xamante ni kenn du ko dindi ci ñaari jàngoro yi muy hémorroïde ak ndoxum siti. Mhm. moom ndoxum siti moomu euh, hémorroïde nee nga 6 mois wala mën na ko moyen ndoxum siti ñaata mois nga koy traité. non ndoxum siti moom mën naa dem ba at. mën na dem ba at naa dem ba at. ndax dañ koy topp rek. Euh, dafa am syphilis dafa am euh, dafa am dayo bi mu toll foo xam ne nii. Mhm. mën nga ko traité benn at ba ñaari at. benn at ba waaw benn at ba ñaari at. alhamdulilah traitement yooyu moom comme dafa <laughs> traitement deret la euh, cosaan la loolu moom da koy traité. lu xaw a yàgg. lu xaw a yàgg maladie daal nekkul maladie boo xam dañ ko faj jooni jooni. macha allah déedéet mënuñ faj jooni jooni. dëgg la moom à long terme rek day laaj ay rendez-vous ngay dem ki ñëw wax la li li muy bañ ak li muy nangu. dëgg la ak loo war a sol. Mhm. fi ne ndoxam si am na xam boo ko amee lu mel ni tergaal wala nii la waroo ko sol. Mhm. waaw fi mu ne boo solee tergaal wala nilon fekke sa yaram day xasan xasan bi day gën a yokk. day gën a yokk waaw wala ngay lekk jën yabooy bi da lay gën a sonal da lay day day indi yaram bi day xasan bëri di lëndëm wala ngay lekk yenn produit yi nga xam ne produit yi nga xam ne dañ koy dañ ci defee engrais. engrais jëm ci ay légumes moom da da lay day def ndoxam si en même temps day jàpp sa tànk. allahu day jàpp sa day jàpp day dem ba day jàpp say. say tànk waaw. indi la ay ay ay ay ay jafé li man dal dafa bari moom <clears throat> macha allah wax nañ ci hémorroïde wax ci ndoxum city waye nak dañuy dugg ci li nga xamanteni moy walum ñaan wa ñaan mom buñ ci duggé moy li naan asrar waaw asrar asrar mhm. asrar nit ki dafa am bidiw am rawxaan am mhm. euh nit ki nak bala nga ko ñaanal il faut nga xam rawanam lan la il faut nga xam rawanam ñi seen rawan dafa ne ci ndox mhm. ñi seen rawan dafa ne ci suuf ñi seen rawan dafa ne ci sawara ñi seen rawaan dafa ne ci ngelaw. allahu akbar léegi il faut nga xam rawaanam lan la. Mhm. il xam turam ñaata lay peese. ci nga koy commencé mën a ñëw mën koo ñaanal xool ba xam rawaanu néeg nday la yor wala rawaanu néeg bàyyi. kon loolu lépp day am ci nit ki ci néeg day am néeg boo xam ne tey rab yi dañuy topp sa côté waajur paternel. Mhm. mooy côté papa. côté maternel sa côté yaay ndax koo xam ne day sëy koo xam ne bokkuñ dara. dëgg la léeg-léeg ku am sa rawaan boo xam da ngay ànd ak moom. ñii seen rawaan daa am lu muy bëgg ñii seen rawaan am lu muy bañ. dëgg la kon ñaan bala nga ko mën a def il faut nga peese nit ki xool turam. ba xam rawaanam. xool rawaanam wala bu fekkee tubaab nga nga dem horoscope ba xam lion la wala so kii la euh, sagittaire la wala fas la. Mhm. wala euh, leneen lu il faut nga xool ko. xool ko ci horoscope il faut xool ko bu fekkee horoscope la. wa jëwrin xolé ci horoscope da melni yombul de. ta horoscope jafé wut horoscope mom da ngay xol at bi nga sagittaire bu fekkee amna amna at bu at bu mu juddu da ngay xol mois booba. bu fekkee taureau la da ngay xol bu lion la da ngay xol fu ci ne rek dafa am foy xol rek. deug la bokut ak yanen ak banen yenen yenen yi nga xam dañ koy sété loolu melni ramli wala listixaara yooyu yëpp. yooyu yooyu ci xam-xam la bok eh, tay buñu ñëwé ci walu ñaan eh, eh, seet dafa bëri façon. ban seet la ngay ngay ngay jëfandikoo pour mën a xam rawaanu nit ki. man nag dinaa dinaa dinaa dinaa listixaar. Mhm. dinaa ramli. listixaar ak ramli listixaar moom dangay jar nga fanaanoo turu ndayam ak turu baayam ak ay atam ramli nag moom da ngay toog léegi ma jël suuf wala ma jël kayit waaw xool. waaw seet boobu moom wax li nga xamante ni moo nekk ci nit ki moo nekk ci nit ki. nit ki tey ndax mën na nekk fu sori nga seetal ko ay mbiram. waaw chaque jour <laughs> chaque jour maa ngi seetal nit chaque jour Europe ak Amérique ki ma doon woo léegi bi toogee fii rek chaque jour chaque maa ngi xoolal nit. dëgg la. waaw loolu moom man ngay ñaanal ni sax doo gis. Mhm. waaw comme euh, message am na telegram am ak message ñi message léegi nga jot ci kay ñaan war naa mën a. whatsapp ak yu ci mel ni ki noonu. waaw waaw comme ñaan man ngaa ñaanal ku nekk Amérique. ku nekk mhm. Europe ku nekk Afrique. macha ñu ñëw ci wàllu bayre bayre nag dafa bëri façon. waaw bayre moom daa bëri façon am na bayre quartier. bayre quartier. bayre quartier boo xam ne yow ci quartier bi rek ngay siiw am na bayre boo xam ne ni quartier rek ngay siiw bu am na bayre boo xam ne ni bayre dëkk la. ndeysaan. am na bayre yoo xam ne bayre gox la. am na bayre yoo xam ne bayre bayre àdduna la. bay bayre àdduna. waaw. allahu akbar da ngay gis ku mel ni du ma tudd tur waaye da ngay gis koo xam ne adduna bépp koy xam. bépp koy xam. da ngay gis adduna koo xam ne même Sénégal gii lay bàyyi rem yam. dëgg am na koo xam ne tey euh, Touba gii lay bàyyi rem yam am na koo xam ne euh, quartier bii mu dëkk lay bàyyi rem. la bàyyi rem yam. waaw bayre nag bala nga ko wut da ngay kaaraange ba noppi. da ngay wut ba noppi mi ngi mel ne nga wut magasin nga def ci matériel ba mu fees te wutu sellir. dëgg la waaw xam nga ko jot dugg. waaw bayre dafa am yoo xam dañ koy sangoo am yoo xam da nga koy takk. Mhm. am yoo xam da nga koy naan. Masyaallah. allah bayre bu mom boko amé tay nit ñi dañ lay tudd amna ci bayre yo xamni ne tamit da may wërsek dalay may ah, wërsek dalay may wërsek de ubbi sa lu bare bare bare bayre bu mom dañ ci def ay sangat dañ ci def ay sangat yo xamni tay euh ah, lo yëngu rek lu bayre da ci bax dëgg la mais day am kaaraange ba pare. waaw ah, moy waral nit am bayre ta hmm. amul kaaraange leneen nak leneen mën ko jafé ci ciow day am ay jafé jafé deug la ciow yu bari lay am. Hmm waaw bu ko defee da koy indil ay jafe-jafe. ay jafe-jafe mais bu fekkee da ngaa nekk jigéen. Mhm. toog lu yàgg ki amoo borom kër ku ñëw dem kooku ñàkk bayre da koy def. ak umu ñàkk bayre da koy def. ak umu. ak umu ak rab loolu da koy def waaye nag sangat boo amee bayre rek ñaareel bayre bi say am na. Mhm. boo xam ne mën ngaa am borom kër léegi. te boo sëyee nag toog ci bañ a bañ caa génn. allahu akbar moom bayre day am bayre buy wut place am na. Mhm. comme ngay football. bayre mën nga defal nit bayre boo xam ne nii defaloon naa ku mel ne AS Pikine ñëpp xam nañ kama defal xam na. dëgg la. Euh, AS Pikine def foo foo foo ko tuddee ñu ne la xam nañ ko. nañ ko defal naa ko nit mhm. muy jël coup bi ñoom ñëpp xam nañ ma li may wax xam na média la man nga ko defal moom dong lañuy ñuy dégg man nga ko defal mbërëm làmb dëgg la muy muy muy am tur man nga ko defal sëriñu daara kuy jàngale man nga ko defal ab jàngkat rawatina jàngkatu xasida yi mhm. baas bu ndëm yëngal ko mu yëngal ko mu neex yi daanu waaw di joxe xaalis man <laughs> nga ko defal politiciens yi tamit aussi nit ñi di leen xam man nga ko defal commerçant bi bayre dafa bëri ku ci ne li nga yëngu ku ci nekk la nga ca bëgg da war a am bayre macha allah euh, bu ñu ñëwee ci wàllu bayre wax ci kaaraange euh, tey jigéen joo xamante ni bii mënta am doom yaa jigéen ko mënut am doom buur dafa am lu ko sabab lu bari. waaw sëy lu sëy lu yàgg ndeysaan mënoo faa am doom. so man man ngeen am man ngeen am li naan uh, uh, rab. rab rab man na ko def. Uh, kii man na ko def feebar mën na ko def. feebar man na ko def ndoxam siti Man na ko def. dere pérniciose man na ko def. man na def allahu akbar. waaw deret pérniciose yàlla am SS. man mhm. na ko def. man na ko def. dere pérniciose nag souvent mooy ñaar ñi nga xam ne dañoo bokk lool man nako def man nako def man sa trompe ti man na boucher man mhm. na boucher man na trompe man na fat bu fekke trompe man na fat ku góor ki walax njaan man na am doole mhm. waye sa bu sey ki jigen ki bu walax njaan waré dem ci footis bu tok fa hmm wara développer du ko def day wat day genn allah am jigen go koo sa bu sey borom keurum ndox mi gennat mhm. koko du gaaw jël la bu fekke da nga am euh, perte blanche lay sonal ndax perte dafa am ñaar dafa am perte jaunâtre am perte blanche am perte bo xam dafa wex am perte bo xam dafa am dafa zone par am xet. ñaareelu nak ñu fi ak mi ngi nek ci jigéen. bir bi métti lako def ak omi yi métti ak diginaaw gi métti. même pour mu am dom day xawa jafe. day xawa jafe. waaw lool nak lu ñu def lañu def day dem ba am infection lay am. waaw infection lay am. infection de baaxul infection yi nag boo demee nag li ci gëna gaaw nga dem gis ben sage-femme. wala nga jël yenn garab yi nan lay traiter l'infection bi moy les les maladies infectieuses. dañ la koy fajal légui bu ko defee nga mën a am jàmm ñàkk am doom tamit li koy def mooy jigéen tamit mën nañ ko dëj mën nañ ko def ay mbir def ko ci jànj wala ci xorondoom paxe xorondoom ba pour mu am doom rek day xaw a jafe. allahu akbar yooyu yëpp. léegi yow kooku bu ñëwee bala nga koy faj da ngay xam lii lan mooy cause bi. waaw il faut da ngay njëkk seet xam nga seet bi moom moom ci nga njëkk xam dangay xool te bu fekkee jar na nga jël sa seet ko da nga koy xool. dëgg la xool xool xool ko. Euh, bu fekkee jar na defal ay analyse nga defal ko ko bu fekkee jar na euh, listixaaral nga listixaar ko xool ba xam euh, cause bi lan moo ko waral. Mhm. waaw loolu nit moom mënoo ko faj te seetoo ko il faut nga xool ko. mënoo ko faj te seetoo ko. il faut nga seet ko. Mhm. waaw il seet ko soit nga jël température am jël tension am wala nga jël xool rawaanam. wala nga li si xaaral ko xol il faut nga set. waye tamit euh, leg leg ñu gis tay góor go xamanteni day wër suba ba ngon ta du am liggey fu mu lu mu yaakar mu tas. waaw fu mu déposer kay duñ ko jël ba ci office ak lepp lolu rab da koy def liggey da koy def rab day def euh, bo yaakaré do ci jot. bu la digon na la kay jël 8h euh, bo ñëwee 8h do do fekk waaja. allahu akbar wala du la jox tay bo yaakaaroon liggéey même buñ la jëlé bo dem ba ci digg day am lu lay découragé wala sa xol di tang wala ngay tayal ku ko rab da ko def liggéey da ko def. ndeysaan liggéey yoo xam ne bu nee ci nit bu fekk dañut nit ki du gaaw am liggéey bu fekkee rab dafa japp nit ki tamit euh man nako yàqal ba pour mu am liggéey wala liggéey bu mu am rek da fay jóge deug la loolu rab mom da koy def loolu nak dañ ci def ay sangat waaw sangatu rab moom dafa bari. dafa bari dañ ci def ay sangat bari pare sarax. am na ci ñoo xam sen sarax. day laaj euh, ay gàtt wala ay ginaar wala ay dugub wala ay ceeb walla balalu soow wala leneen lu mu laaj rek da koy génne. dëgg la da koy génne rek. Mhm. yàlla ma na ndax bul fàtte buur maa ngi lay wax ne nit day am rab néeg ndey ak néeg néeg baay. néeg baay ak maternel. ak waaw allahu akbar. Mhm. loolu da koy da koy da koy am. dëgg la léegi nag bu ko amee dafa am tegtal yoo xam ne. Mhm. boo ko jëlee rek def ko. yàlla da lay ubbil bunt ak sarax yoo xam ne boo ko defee yàlla daf lay daf lay dimbale bu baax. waaye ci biir loolu léeg-léeg ñu gis ku rab sonal ba mu indil la ab xel mu dem. waaw bari na rab day dof loolu nit. waaw rab day day day jigéen ñu bari ñu ngi jógee seen sëy rab moo leen fay jëlee. Mhm. am na koo xam day nekk liggéeyam ba mu yàgg liggéey ba soof ko mu dem. am na koo xam ne day toog fi ci kër kilifa ba mu yàgg mu dem. am na ci koo xam ne day tukki ba mu yàgg mu xotti kayitam mooy jël kayitam xotti ko wala mu taal ka dëgg la am na koo xam ne day dem ba mu yàgg euh, nekk ci benn équipe wala mu ne fa mu jékki-jékki jékki bàyyi dem am na ci koo xam ne sax mën ngaa nekk yor mbooloo ba mu yàgg wala nga yor euh, xéwal ba mu yàgg loola di dem ndànk-ndànk te doo xam lu koy demal loolu lépp rab da koy def. dëgg la waaw léegi nag bu fekkee nag xam nga sa tegtal rek. Mhm. yàlla daf lay dimbale. ki nga xamante ni daa tukki bëgg ay kayit. yàgg fa lool wala sax mu bëgg kayit mu gaaw mu tukki. waaw loolu ci boppam nit ki da koy xool danga koy xoolal lan cause bi lan la. Mhm. boo ko xoolee da nga xam ba xam cause bi lan la lan la war a saraxe ak gan ñaan nga ko war a defal. Mhm. ak euh, lan mooy euh, sabab bi pour loolu lépp mën a am. dëgg la ndax boo ko xamul rek mënoo ko defal ñaan mais boo ko defalee ñaan rek yàlla mën na ci defal tawféex. macha allah ñu dugg nag ci li nga xamante ni bii mooy tegtal. tey ban tegtal nga ko doon indi pour baaxee ko euh, mbokki internet yi nga xamante ni ñoo ngi ñuy seetaan. waaw tegtal tey damaa indi euh, xasam xasam xay. xasum xay. moo nekk nii. xasum xay a nekk nii boo àggee ci jënd xasam waaw takk bi. ak reenu daqaar reenu daqaar ñoo nekk nii mbokk yi déglu leen bu baax xasum xay xasum xay ngay jënd ak li nga xamante ni bii mooy reenu daqaar xasum xay moo nekk nii waaw kii mooy xasum xay reenu daqaar a nii waaw reenu daqaar xay nag moo nekk nii garab gu mag lay doon mhm. garab gu mag lay nekk gu rëy moom xay waaw xay mhm. daqaar tamit garab gu mag lay nekk laa ilaha illallah mais moom benqal yi mën nañ koy jëfandikoo waaw di ko def ci xéewale li ñuy xéewloo. maccaat yeeg yooyu maccaat yi waaw. waaye boo jëlee tey lii. Mhm. nga yaakaar ne ab liggéey dafa ne ci yow. waaw. dangaa da ngaa umu. Mhm. wala da ngaa jékki rek am lu la jaaxal ba jaaxal la. ma mhm. ngay jël ñaari yii. waaw. Euh, bu la neex sax su nga fa xay nga boole ko ci. da ngay bind ayatul kursi ba mu jeex. nga bind tabat ya daal ba mu jeex. waaw bu ci naan rek bisimilah rahmaani rahiim nga tijjee ko salaatu alal bi tëjee ko salaatu alal bi nga def ko ci siwo xàmb ko ci siwo mhm. sangu ci ñetti fan par guddi. ñetti fan par guddi. waaw kii waxuma la liggéey bi ne ci yow rek ku la liggéey musiba am. ku la liggéey faatu. ku la liggéey moom dana métti loolu daal. moom waaw day métti. xel may dem. waaw ku la liggéey wala lu ne ci yow daal loo xam ne nii dañ dafa war a dañ. Mhm. boo ko sangoo mu dañ. boo ko sangoo ba noppi nag da gas kàmb ba mu xóot. nga suul ko ci. nga suul ko ci. kon tegtal lii indi tay waaw kon yow mi tok di setan mhm. bo yegge dara sa yaram. jeerut bu la bu fekke mëno dem ci serigne outal xasam xey reenu dakar nga bindulu ayatul kursi yu ak tabat ya daa. la. bu ci nek am bisimilah rahmaani rahiim nga tejey ko salatu ala nabi nga sango ko ñetti fan ñetti guddi boy teud diggante bi nga koy sangoo nag doo nga gas bam sul yow mbokk mi boo boo noppee danga gis sa yaram dana oyof lool. allah la doon yàqal dana la woon ginnaaw. alhamdulilah rabbil alamin tegtal yi kon lii laa indi tey. Euh, jërëjëf. xale bu xiiboon xañ naa moom moom lañu laa war a ñëw. waaw xale bu xiiboon. mooy malnutrition malnutrition. Mhm. malnutrition dafa am sévère ak modéré. dëgg la daa am boo xam ak ak boo xam ne dafa xaw a yem. Mhm. ak malnutrition bu métti bu bi bu bi. Mhm. loolu yàlla def na ñu ngi ci ñu ngi ciy def ay ñu ngi koy faj. di ci def ay résultats macha allah kon ku am xale bu xiiboon dee ko jox lu mel ni nen mhm. ak ñebbe ak di ko defal mbaxal moo xam day am keccax wala jën bu tooy. ah jori loolu neex na de loolu kay mag mu xiiboon sax baax na ci moom dañuy baax ndax yi dafa am ay protéines yi am ay calcium. te xale bu màggam dëgërul rek euh, lekkam baaxut màggam pour mu dëgër day xaw a jafe. dëgg la kon loolu lañ indiwaat tey fii ci Touba Ndindi Tawfeex. macha allah. ci émission bi ma def mooy faj ak cosaan tegtal. Mhm. ak ñaan ak listixaar ak listixaar. loolu laa indi. Mhm. macha allah ah, mbokki ah, internet yi. Ah. waaw ñu leen di xamal ne émission bi du yam tey rek. tey premier numéro bi la saa su nekk dinañ ci ànd ak moo de Fleur. Hmm. mu indi xam-xamam ndeysaan ngir baaxee leen ko. actualité yëpp tamit danañ ci wax. waaw actualité lépp lañuy wax jëwriñ. ak làmb ak euh, làmb ak lépp la ñuy wax. Euh, religieux beeg. religieux beeg lépp. sociétal beeg. sociétal beeg lépp rek. Euh, li may tëjee rek mooy hmm. immigration clandestine bi baaxut. dañ hmm. ko wàññi. allahu akbar weer yi ñu weeru ngelaw la. te rab yi nga xam ne ak euh, jinne yi ceddo yi ne ci géej gi dafa am yuñ soxla kon xale yi bëgg a dem nañ yebbi ñi waajoon bëgg a xaalis nañ ko jëliwaat te toog ci réew mi. allahu akbar na immigration clandestine bii musiba la cim réew baaxut. kon xale yëpp nañ toogaat te xew na réew mi dana mas a neex. dëgg la. Ah, kon nak bour damay wacc kaddu yi. sha allah di sante eh, dañ lay ñaan une minute rek. Ah. ci actualité bo xamanteni ni dëkk bi yépp a ngi ciy wax comme da ngay jëwriñ ci yoon wi mënta ñak ñu laaj la ci sa kaddu muy eh, mbokk taalibe bi nga xamanteni manam baye fall bi wañé ku barki ci seen digënté bi am doxone ak suñu mbokk pël yi. waaw di jale suñu mbokk baye fall bu rek di ko méttiitlu te xam ne bi Touba mom def na borom Touba. Mhm. Touba dafa am ko ko moom ko tudd borom Touba. borom Touba muy Cheikh Ahmadou Bamba. xaadim rasul. borom Touba nag tey sëñ Muntaxa la. Mm. jël na ndigal dénk ko ay kilifa. Mm. kon ndigal li na ko ñëpp jëfee. dëgg la moytu. Mm. ndax ndigal li Cheikh Ibra nee moom moo ñuy dimbale. kon nañ jëfee ndigal. Mm-hmm. di bàyyi tere. macha te lu mel nii rek gëj fi te bu mu amatee. allahumma amiin waaw loolu rek la ñuy tàggoo. allahumma amiin waaw na dañu gërëm sëñ Abdou Karim nag. ak borom Makaarimul Axlaaq mii. xam ne kenn la ci ñun. ndeysaan du suñu waajur du suñu lépp. macha allah manal ñu lépp. Mhm. def ci ñun lépp. ndeysaan xamal ñu lépp. jërëjëf yëkkatuñu ba ca kaw. ñu ngi koy gërëm di ko sant. allahu akbar beneen numéro rek. Mhm. ñu am yeneen yu waxtaanee. ci beneen numéro macha allah beneen numéro. Euh, mbokki internet yi euh, ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ci ànd bi ngeen àndoon ak ñun ci fajum tegtal ak cosaan euh, en même temps aussi ñu ciy waxtaanaale actualité yi nga xamante ni ñoo xew ci réew mi ak bitim réew.